xadama xadima janta ngi jooy maam cerno ibrahima wera ngi jooy laylan bada bayima asalaamaaleykum wa rahmatulah bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar tay ji ci dimanche ji yamok ñaar fukki fan ak ben ci wéru avril ci atum 2019 dëppoog fukki fan ak juróom ci wéru chamban ci atum gaday gi tay nak comme ni ngeen ko xamé ñoo ngi ci bis bu am way bis bu am solo ci yoonu murit dëppoog bis bi nga xamné ci la sun Serigne Touba khadim Rasul joggé won ci geej gi joggé won ci geej gi ba taxna ñoo ngi ci dekk bu sel bi di Daaru Moxti Daaru Moxti nak buñ ko waxé xel yépp dana dem ci jambaari yoonu murit muy maam Thierno Ibrahima Faty Ndamal Daaru mam Thierno ibrahim fat nak comme ni ngeen ko xamé mu doon rakk ci ku tedd ki waye tam doon ko mu doylo won ndax bi mi dem ci geej gi mom la batalé won njabot gi mu sam ko ci saminu rafet ba serign bi delu ci mo ngi tëdd fi ci bayti ñoo ngi ñaan yalla sun borom yok ay leram te taas ñu ci barkeem maama ko warulan fa fadarul muxti ma joy la see ahmadu awa balla baayam ba ko ca kër maam balla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 kenn dootul xam la alquran ci mbàkk ku ngi leen di muy du nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp man la Serigne Dame Faty Mbacke bu Serigne Abbas ñu ngi fii tey ci Darou Mouhty ci kër Serigne Abbas di def màggalu Darou Mouhty gi ni ngeen ko xamee muy nisfu Saxbaan di bis boo xamante ne bis bu màgg ci lislaam la waaye mel na ne eh, yàlla suñu borom da ko dencaloon maam Thierno Ibra Faty waaw. bis bi ñuy fàttaliku borom daaru it mooy bis bi nga xamante ne ci la Serigne Touba jugee ndar ci la Serigne Touba jugee ci tukki bi bi mu ñibbisee ba egg si ndar dafa woolu borom daaru moo te mu fekk ko ndar. ba mu ñëwee it di mbégte moo xamante ne mbégte mu kawe kawe la wax nañ ne ñoom ñaar tisbaar ñoo ko julli ñoom ñaar képp kenn raxu leen ci ab néeg julli fa tàkkusaan julli fa timis ba julli fa gee te kenn kenn kenn raxu leen ndax bi mu jugee ci tukki bi liggéey bu mag bi nga xamante ne moom bàyyi woon maam Thierno ci bis boobu la la lañ lañ doog a gisewaat mu wax ko li nga xamante ne moo xew ci ginnaawam bi fi borom daaru jógee nag sëñ moo daw balla doon na ko fàttaliku ci bis bi nga xamante ne moom la fi jógee def na ko ci nekkuk sëriñ Modou Moustapha yëpp bis boobu la doon màggal waaye bi sëriñ Fallou ñëwee bi mu ko laajee ndigalul màggal daarul mooti gi ndax noonu la ñuy doxee ñun waa daarul mooti képp ku fi nekkal Serigne Touba yow la ñuy def suñum Serigne Touba lépp màggal gi saa su jubsee dañuy ñëw ba ci yow laaj la ci ndigal Serigne Fallou ci jamono jooju bi ko Serigne Modaw Balla laajee ndigal mu ne ko màggal gi dinañ ko def waaye nag dañuy soppi bis bi ndax bis boo xamante ne bisu naqar la kenn du ci woote di ci feeñal mbégte daan ne ko nañ ko def ci nisfu Sambaan ji ndax mooy bis bi nga xamante ne mooy bisub màggaluk mooy bis bi Serigne Touba gisewaat ak maam Thierno ginnaaw tukki bi te lu yéeme am ci seen seen diggante ndax ndax bisub màggal Touba gi mooy bis bi nga xamante ne ci la Serigne Touba génnee Mbàkke Baari jël njaboot gi teg ci loxol maam Thierno bis bi ñuy màggal Daaru Muxti mooy bis bi nga xamante ne ci lañ njëkk a gisewaat Serigne fàllu mi yeesalaat màggaluk Touba gi moo yeesalaat màggaluk Daaru Muxti gi at mi it dañ ko seddoo ci digg bi dañuy màggal Daaru Muxti toog 6 mois màggal Touba màggaluk Touba toog 6 mois màggal Daaru Muxti borom daaruk Serigne Touba seeni mbir ci zahir rek lu ci bari lu ci bari da ci feeñ loolu mooy mooy li war a màggal waaw gi nag ñi ngi ci 75e édition bi ñu ko tàmbalee ak léegi waaye ci Serigne Abbas bi mooy ñeenteelu màggalam bi mu nekkee borom Daaru Muxti ak léegi moom it bi mu ñëwee ci yaatal xam ne jamono ji ñu toll communication moo moo yor lépp donte defuñu ko ngir ngir wane borom daaru ndax du ko nëbbu bañ koy wane waaye jamono ji mooy doxe noonu faaw ñu wane ñi nga xamante ne moom la ñu suñ borom jox ngir suñuy ndaw raw roy ci ñoom ndax am na ñoo xamante ne ñi ngi ci suñu wet di wane ñeneen ñoo xamante ne ñooñu lañu bëgg ndaw ñi def ay def leen ay exemple te am nañ ay exemple yu doy ay exemple Serigne Abbas ci yaatalam mu ci commission Magal Daaru Muxti gi gën koo yaatalaat ba ci ci ci ci yaatu googu ci moo ñu mën a may bu màggal gi jàllee am colloque yoo xamante ne dañ koy def am caravane boo xamante ne ci régions yi Sénégal yi dañ fay dem ngir ngir ngir fàttali bis bi ngir soññeewaat ci wane wane jikkooy borom Daaru Muxti gi waaw ren ñi ngi ko doon defee King Fat Place le 14 le 14 bi passé université Cheikh Anta Diop def nañ fa def nañ fa benn. ci bisu màggal gi it noonu la commission bi di nekkaate ci biir dëkk bi commission culturelle lu jëm ci exposé yi ñoo ko ñoo ko yor ñu nit ñu dénk ñu biir kër sëriñ bi liggéey bi kilifa yi gis ngeen leen ñi ngi ñëw ak a dem waaye bëgg nañ taxaw ci biir kër gi ba ba ba képp ku fi ñëw moom sa xol dina sedd te lol lepp mbektim Serigne Abbas rek lañ ci sakku cérémonie officielle bi suba lay doon inshallah bu 10h jotee su ko defee eh, Serigne bi ñaanal gan ñep ñu ñaan suñu borom fekk ko at yu bare bari te ànd ko ak mom rabbi karimun wasi'un wa yufadilu ووسيلتي عبد لديه مفادل